acca sama gars yi gars yi seen bii di Mbow Bouss ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi nga abonné partagé yokk ñu doole gars yi tey jii ñaari international sénégalais la leen indil muy Badou Ndour ak ki nga xamante ni moo di Aliou Balde ñu nekk ñaari boo yoo xamante ni mën naa ne ay jeune talent la te boo yoo xamante ni lan nii am nañ avenir trop te man jàpp naa ni dinañ def ci football dara ci Badou Ndour la ñuy njëkkee Badou nag actuellement moom Badou Ndour mii mi ngi ci championnat Belgique te mën naa ni doomu Sénégal la ak Belgique jëlagul benn nationalité bu ko neexee mu ñëw Sénégal bu ko neexee mu football Belgique mais jàpp naa ne booy bi Aliou Cissé dafa war a def lu gaaw pour convoquer ko parce que booy bi talent bi nekk si moom waruñoo xaar ba Belgique nangu ko ci suñuy loxo parce que ku nekk xam na ni tubaab bi sàcc suyar dañ see trop parce que Amadou Onana Amadou Onana exemple ci Amadou Onana rek Amadou Onana ku nekk xam na ni doomu sénégalais la Amadou Onana Dakar la juddoo Amadou Onana mën naa ni dafa demoon Belgique yàlla def mu nationalité Belgique kon dossier dossier Amadou Onana li ñu ci dal waruñoo xool ba mu dal ñu ci dossier Badou Ndour man naa ni Badou Ndour booy la boo xamante ne attaquant la te ab jeune talent la mën na football trop te man naa du yenn mag yooyu ay vingt et un kese la am moom Badou Ndour mii te xale la boo xamante ni xarañ na trop te day dugal ay bii kon Badou Ndour mii pour man dañ kaa war a bàyyi xel si suñu équipe nationale bi renforcer suñu doole attaque parce que booy bi talent la de talent la te man jàpp naa ne buñ ko woowee si équipe bi war nañoo mën a apporter lu bari. bu fekkee ki nga xamante ni moo di Aliou Balde Aliou Balde moom it mën naa ni daaw. mi ngi woon championnat pays ba mais ren dem na ca championnat Suisse mu nekk boy boo xamante ni xarañ na trop xarañ na trop moom Aliou Balde mi mën naa ne Aliou moom sénégalais la d'origine sénégalais la mënta dem benn club mais Aliou Balde dafa jot ñu woo ko suñu équipe nationale U23 bi wala ñu woo ko équipe A parce que booy bi xarañ na trop xarañ na trop te man jàpp naa ni booy bi bu niveau am gënee yéeg équipe bi nga xamante ni moo di pays wala ay Suisse ak yooyu mën nañ cee jéem a teg loxo parce que booy bi mi ngi def ay match yu baax ci équipe bi nga xamante ni fa la nekk kon Aliou Balde mii dañ ko war a gën a bàyyi xel gën kaa kaa woo si suñ équipe nationale bi mën naa ne suñ équipe U23 ñi ngi fubal ay pour quoi duñ ci woo ñoom Aliou Balde ñi ay ñoom yeneen jeunes joueurs yoo xamante nii mën naa ne ay doomu Sénégal ak yeneen dëkk lu tax duñ leen ci convoqué quoi comme que mënuñoo ñëw si équipe A bi dañ leen war a woo si équipe U23 bi parce que équipe U23 bi ñu ngi fay woo ay booy mais man jàpp naa ne booy yi ni woo des na dañoo war a woo yeneen booy yoo xamante nii mën naa ni seen ñëw Sénégal wóoragul ñu woo leen ñu ñëw gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé